di ñaan yi ñu jagleel réewu Sénégal ngir yàlla buur bi muccal ñu ci lépp luy xeetu fitna gu mën a taal réew mi ngir élection présidentielle yi ñu dëppmal jaar yoon ci jàmm ju mat sëkk loole waral imaam yeeg ulema yi di ñaax rek ñi nekk ci làngu politique yi ñu ànd ak dal ñuy ñaan ñi nga xam ne nag loolu moo nekk ngëneel ñu wax ak réew mi ne ñiy yore li ngaaraange réew mi nañu fexe ba fi dara yàqu nañu fexe ba bu fi kenn gaañu nañu fexe bu kenn yàqule te loolu nag ci ñun lay jëkkee kenn ku nekk na ko yéene def ci boppam def ko ci dëkkandoom def ko ci quartier def ko ci réew mi ndax ñëpp am jàmm ñii nga xam ne ñooy candidat yi na ñuy waxante jàmm ci seen i kàllaama ci seen i jëf ci seeni i programme ndax loolu lañ ciy xaar. ci seen gis-gis taskatu xibaar yi war nañu am taxawaay bu am solo ci mbir mi ndax rek doole gi ñu am ci biir réew mi. xibaar yi nga xam ne dañ koy jot wala li woon ñu war a jotee nañ ko jotali ni mu nekkee wax ko ci teggin ba ñu wax wax boo xam ne day àndi baatu fit fitna nañu segg baat yi xam ne kat bisu ootee la rek diw oote na diw ñëw na diw dem na diw bu ngoonee nag bu yàlla dogalee résultat yi génn wala ëllëg sa wala ginnaaw ëllëg sa lu yàlla dogal kenn ku nekk jàpp ne lii la. ndax journaliste dafa am doole ndax mooy kàddu mooy làmmañ mooy bët mooy xel te mooy joxe xibaar. li ñu bëgg mooy ñu sàmm loi yeeg institution yi nekk fi ci réewu Sénégal ngir dooleel suñu démocratie ci seeni kàddu ñoom imaam yeeg ulema yi waxtaan di dialogue dong moo mën a xettali Sénégal ci lépp luy xeetu guuta